métti métti laa yor maa ngi wallaahi yaa yi dal leen ak jàmm ci seen euh, site Sénégal 7 ñu amaat mbégte ak contentement de jënowaan ak yéen comme niñ kon saxoo defee Euh, fépp foo xam ne sénégalais nekk na fa fépp foo xam ne nit itoo na fa ndimbal ñu dem fa comme ni ñu koy defee saa saa ci seen social ci Sénégal 7 tey nag ñu ngi fii ci Caaroy Azur euh, di kon seet si suñu benn mbokk jullit euh, di suñu mbokk sénégalais suñu borom teg ko natu ñu di kon rek comme ni ñu ko daan defee gis nañ ñi ngeen def ak ka Ousmane Diallo ngeen jàppale ko bu baax ñu bëggaat nag fii bu ñu fi dikkaatee ngeen defaat noonu ñu nekk ak suñu yaay boy yaay ñu ngi lay nuyu. te di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér li ngeen defit yàlla na leen ci yàlla jàppale te barkeelal leen ko ndax laabir rek moom mooy li ngeen di def tubaarkàlla macha allah ku jaaxle wala mu jàq ñu ngeen jàppale ko ba yàlla suñu borom dimbali ko loolu rek la jullit manal moroomam kon yàlla na ci yàlla ànd waaw. yaay booy sa doom suñu borom teg ko nattu ndax mën nga ñu dikkal rek ci naka la demee. waaw nattu bi de moom mooy yàgg na yàggul ndax yàlla sunu borom moom lu ko neex rek lay def ci jaam bi feebar bi daanaka AVC bi dem na sept ans léegi bi mu demee ba daaw loxo bi génne benn picc yóbbu ko sétawoo hospitalisé ko bi ñu ko hospitalisé daanaka li ñu amoon lépp ak famille bi ñëpp kenn ku ne def nga li nga man ñu wàññi loxo bi booba léegi nag moom mi ngi nii te taxul mu tàggoo sax ak mitit loxo bi day metti tànk yi mi fi mu ne fu muy demoon maa ko fa yóbbu te man maa ko gën a wéradi sax man sama bopp sax man wéru ma waaye jaboot moom bu doon wéradee rek amatul lenn loo xam ne dina ko xalaat lu fexe nu doom ji wére maa koy yóbbu ci toilette bi koy jox mu lekk maa koy solal yére maa koy defal yëpp te fekkoon na fit benn rakkam bu góor bi topp ci moom yàlla dogal mu wéradi wéradi xel kooku feebar bi yàgg na ci moom daanaka lee mu def vingt ans famille bi ñëpp def nañ ci li ñu seen kàttan ak seen doole seen lépp def nañ ko ci waaye nag mbir day xam ne ka ca sës rek na mooy tey sës ndax nit ñi dañuy dem ba dañuy sonn waaw ki nga xam nag day dem ba sonn moom ah tubaarkàlla yàlla dogal na xam naa sax sonn ñu waaye nag man maa leen di ñeewante ci di wax yu bari yu baree bari day ñëw ci man du ma leen ko wax dama leen bàyyi noonu rek di jéem a lijjanti di jéem a faj wala comme dëkkuwaay yi seer na problème yu bari na ñu ñuy jànkonteel daal bari na. AVC nga wax ni moom la am euh, euh, laataa mu koy am euh, lan moo lan ngeen jàpp ni moo waral loolu. moom daal dañoo tëdd ba guddi benn bis rek muy nekk di fekk booba tàngu sedd la ma tëdd ak moom ñu sangu ma tëdd ba guddi gis ko mu yokku di yokku après ma daal jóg ni ko yow tëddal të benn place waaye mu tëdd bàyyi loolu mooy dindi bàjj mu gis ko mu commencé def ay crise ma yee sama benn dëkkandoo bu ñu dëkkaloon foofu moom yoroon na oto mu daal ko. bindal ko garab ni ma léegi jox leen ko mais bu subaa bu ñu xëy ñu yóbbu hôpital Fann bu ñu ko yóbbu hôpital Fann presque lu mat ñaar fukki médecin ñoom kabadoor ak ñëpp ànd nañ ci ñu xool ko bi ñu xoolee ñu dafa am timoor ci bopp bi waaw léegi nag ci loolu daal laa xam ñu nekk nag di ko traité di ko traité di ko traité bu mujj yàgg nag loxo bi bañ tànk bi bañ ñu nekk ci loolu ba ci la problème bi ñu ngi def ñaata at. ba léegi mu tëdd. léegi kay fi nekk cinq moom war na koo mat moom cinq yi mat na ko waaye bi mu daanoo affaire feebar bi léegi moom mat na sept ans moom wax yàgg na waaw. laataa loolu moom ci lan la doon yëngu. moom kay jàmbaar nag rek doon nag doom ju ma bëgg ju ma yërëm ju ma mënoon di dimbali nag ndax man couturière laa doon def daanaka toogaayam bi moo tax léegi defatuma dara ndax xam nga mënoo yor couleur di yor ay atelier ko lijjanti mënatuma ko léegi moom dafa jàmbaaroon ci ñaw bi jàmbaar ci commerce bi jàmbaar ci lépp. bi mu feebaree feebar bi rek ci la ko mu defatul dara léegi ci la toog defatul dara ku nangu la nag ku nangu la ku nangu ku nangu kilifteef ku bëgg waajur la it ku àttana sonn ci moom àttana sonn ci sama njaboot bi njaboot yi nga xam ne moom moo leen nag ñoom ñëpp moo leen boot moo leen dimbali moo leen moo leen topp topp ñu gis ko sànq gis nañ ci ay photo mu doonoon ku jekk macha allah euh, dafa nekkoon ci buumu sëy wala. waaw dafa nekkoon ci buumu sëy borom këram ngeen gis noonu mu ànd ak moom. waaw am nañu ñaari bant kenn ku ñu yoroon fii sax léegi toog waaye kooku mu ngi jàng métier fii tabi si lay def moo ko lëg keneen kii mu ngi jàng menuisier métal bi waaye ñaari doom yooyu léegi nag borom bi moom ko dafa wàcc liggéey daal boobu ba léegi ngay jànkuwante ak lu métti fu muy dem yaa ngi fa jëmale te ngay mag di sa doom moom kay mënuma ko wax li ba mu jeex sax damay jànkuwante yu metti ndax dinaa koy yóbbu di ko delloo si bi bu ci jëmee maa ko yóbbu bu lekkee maa ko may mu lekk bu solee yére maa koy solal yére ndax xam nga bu ñu wàññee sa benn loxo rek daanaka amatoo doole te beneen loxo bi ci des gis nga ko moom mooy AVC xam nga kon kooku amatul benn cër bu mën a kii dawal te man maa ko gën a wéru dina man mii maa gën a feebar <laughs> damaa tël te faju rek waaw moom mën naa wax waaw miti miti laa yor saafara. wallaahi. sax ni mu kii moo feebar day jàpp yaram bi jàpp bëti waa day jàpp yaram bi jàpp bëti moom daal moom daal xam naa ni métti gi guddi gi yenn saa yi da koy da koy sonal am na ay garab yi ma ko jox ni garab naa bu ma ko joxee mu xaw a nelaw bu nelawee tuuti yeewu waaye daal doy na waar daal doy na waar. ndax boobu ba léegi am na ñoo xam ni ay bonne volonté maa nit ñoo xam ne ñu baax lan dikk di ci def te yàlla rek tax. waaw waaw am na ñu baax nag ñoo xam ne dañ ciy def te yàlla tax am na ñoo xam ne dañu ciy def sax te duñu bëgg man xam ne ñoom ñu ngi ciy def léeg-léeg damay toog ba yàgg rek nit jël dara yónnee ko ni boo demee joxal ma ko fàñ ña yàlla nag dogal na moom nii ko yàlla binde dafa bari wan ay connaissance bari ay xarit xaritam yu bari dañu ciy jàpp léeg-léeg ñu ñëw daal di ne ah si nañ xaaral ñu ñëw seeti ko yooyu daal ñu ko ciy def waaye nga fañ mën a yem daal la ñuy waaye am na ci yoo xam ne engagement yoo xam ne moom ko engagé ndax kër docteur te nee na jox ay këyit maanaam ay ordonnance yoo xam ni war ngeen koo jël ak yu demee noonu. ordonnance ay traitement yi waroon nañ koo def ndax bi ñu jógee CTO dañoo waxoon ne nañu continuer hôpital fan waaye foofa it hôpital Fann ñun léegi il faut mu def ay scanner am yu bari yoo xam ne daal moom nañu waxoon ak hospitalisé waat ko di ko commencé di ko kii waaye sottiwul waaw mooy waaw mooy lay laaj yooyu yëpp ay lay laaj. voilà. ba demaatul def ay traitement. déedéet demaatul def benn traitement te xanaa man maay jënd garab garab yu yomb yi rek léeg-léeg jox ko mu naan. lan ngay sàkku ci internet yi nga xam ne ñoo lay déglu ñi nga xam ne ñooy seetaan Sénégal 7 ak bonne volonté yi ñi nga xam ni def lu baax rek moo la yitteel te yàlla rek tax lan ngay sàkku ci ñoom. xanaa ndimbal rek ñu li ma ci góor gi dimbali ma ci ku jigéen ki ndax ku góor ki fi ne nii benn hôpital da koo nu góor tëjal sax ndax rafa neen laa ko mu doon a daaw bi ñuy génn ñoo ngi leen yore leen cent mille francs yoo xam ne waroon nañ leen koo fay loolu dañ ko bindoon ci kayit ni ma hôpital boo ko yóbbu yi duñ ko nangoo looloo tax ba fi nekk nii nii mu ñuy sonalee sax da daan def su ma sonal rek ma daw yóbbu ko dalal xel wala faan wala hôpital Rafanel wala fenn léegi nag fi ne problème boobu bor boobu moo fa nekk ba tax benn. ñaar fukki junni la ñu bind ci kayit yéen ko war yóbbu hôpital boo leen demee duñ leen jël. déedéet waaw moom lañ moom moom lañ leen yoreloon moom lañ leen yoreloon bi ñu ñëw ndax dañu xëy xëy ndax boo war dañu indi bon bi bi ñu indee bon bi nag amoon xaalis ñu daal ñu génne noonu bi brusquement tey moom bi ñu fanaan ci hôpital bi waaw après la waaw waa rafi ne dañu génn hôpital bi ndax boobu fayuñu xam nga boo fayul nag lay génne loolu moo tax moom mi ngi fii moom di kalte kalte waaw wala problème kër gi ak yëpp fi mu ne gis ko ko borom kër gi maa ngi ko amee fi mu nekk presque juróomi weer xaw ma ñeenti weer ak lu tegal yoo xam ne fayuma ko te ay luyaas xam dafa metti te boo dëkkee ci kër jàmb doo tal dara ndax fi ne kii li muy feebar feebar lépp fi nekk mënoo génte te demoon ci mbedd mi kër gi ngay tal ak loo lekk ak loo ko loo loo loo ko tax yu bari mooy mooy daal moom moo am mooy daal moo am lu ñu mën a dimbalee rek waaw lu gi da nga ko luyee mbaa sonalul la rek ci. ki ma ko luyee nag moom sonalu ma ndax day xale bu baax sax ndax xam nga kër moom boo fa lëkkee te dem ba yoral borom kër ga ñeenti weer juróomi weer juróom benn weer xam nga ko nit ku baax ku am dal la mooy ma di ko ñaanal yàlla na gudd fa nag wér ndax bu ko neexoon mu taxawuma ma wala mu di ma fitnaal waaye saa bu ñëwee yem ci ñoom rek naa ma ajaa góorgóorlu rek waaw loo indi rek baax na waaw man daal dimbal laay sàkku ci tuuna waaw a dimbalee rek waaw mbokk yi def nañ ci jàppale nañ ma wax dëgg yàlla ndax nit ki itam boo santul da xarab te boo nekkee ci xat-xat ñëpp kenn ku ne di la jàppale dërëm muy tànk mu di la ko jox tam boo toogee ci lu mel nii da nga leen di sant leen gërëm di leen ñaanal kenn ku nekk yàlla suñu borom yokk ba yëg ko na xam ni dañu ma doon dimbali ndimbal moo xam ne leer na ma ne man bu fekkoon ne nañu meloon la ñu mel ba tey du ma soxla sax dimbal mi waaye ñoom it jamono li leen dab ñu am ay tolof tolof am ay teeku teeku ba tax na lu bari lañu ñu mënoon lépp mënatuñ ko waaye leer na ma ni ñooña la ma mënoon bu ñu ko mënoon kon nëgë ni du fekk may toog sax di laaj fenn dara ndax bala maa def dara ñoom dañ ma defal lépp ndax lu ma mën a soxla ñoom ma koy defal moo fi ñëwoon tey jii ngir waxtaan ak yow lépp loo xam ni mën nañ ko ci ci lu baax daañ ko ci jéem a def ñuy woo tamit ñi nga xam ne ñoo saxoo di def lu baax ci Sénégal set à travers euh, ci euh, action sociale yi ñuy def ñu ngi leen di sàkk tamit ndax ndimbal moom euh, ku ko gis di nga xam ni diw yi di na ndimbal ñu koy def te rek tax dañ koy def te seetuñ ci dara jiinu ci ngërëmu lu ngërëmu yàlla kon ñoo ngi leen di woo yéen ñi nga xam ni yéen di def social yi yéen ñi nit ñi def te yàlla tax ñu ngi leen di woo ngeen dimbali suñu yaay ji nga xam ni sonn na lool te suñu borom moo ni nañu jàppalante suñu biir ñun jullit yi ndax na mu'minina ixwatun jullit yëpp ay mbokk lañu wa aslihu ma na axwaykum kon ñu ngi leen di woo ci social a ngi nii ngeen dikk defal te yàlla rek tax ni ngeen ko defe ci Ousmane Diallo ba tey ji am na ñoo xam ñu ngi ciy jàppandi donte mënuñu wax ne lépp yemb na waaye ñu ngi leen ñaan ngeen dikk def ko ci suñu yaay ji jërë ngeen jëf da wax dëgg yàlla léeg-léeg nga gis koo xamante ne dal naa boo ko fajee nga dox ma naa nga fi nga ku góor ki bëkki démb la fi benn nit ñëw damaa demoon ba ni dootuma ci sax defati ñaan dootuma ci def dama koy bàyyi xam ne da nga xam ne yàllaa ko teg nga ko waaye nag jaboot moom tànkam ñu gis ko ko naa mën naa nangam loo ci gis ku góor kooku dafa dikk dama laajuma la dërëm laajuma la tànk laajuma la dara mën naa ko faj nag ba mu wér peng waaye bu wéree di ma jox 2 millions man ko amul te damaa am fit rek wax ko loolu waaye xam yàlla mën na ko am waaw waaw yàlla am na lépp te yàlla barkeelal leen def leen mag te def leen mag ñi barkeel ci barke sëriñ bi barkeelal seen liggéey ndax lii ngeen di def ci ci ci liggéeyal yàlla la bokk ci jaamu yàlla la bokk te jaamu yàlla moom benn tuuti wuti loo ci def yàlla na ko yàlla suñu borom nangu waaw ndax ñun dañoo yaru foo xam ne suñu waajur yu baax yi de dañuy wax ni am liggéey te amoo góom mokkal alxuraan te jàngoo ko dem àjjana te deewoo am ngërëm a yàlla te liggéeyaloo waaju baax yàlla mën na ko waaye du ko defal kenn kon nag yàlla na yàlla jàppale dimbali leen te barkeel liggéey ma jaaxle moo tax ma ne naa ngeen jàpp ci ngeen jàppale ko bu baax a baax a baax a baax loolu leen ko mën a jàpp loolu leen ko dimbalee soxla na ko parce que li mu wax nii rek moom la mën a wax mais di ci ginnaaw yëpp mënu ko wax waaw di ci ginnaaw yëpp mënu ko wax waaw parce que bu fekkee da nga njabootee jigéen mu la doon dimbali moom mënatul xam nga sa sa situation day metti waaw day metti te sama maam dafa amee cardiaque yu bari mënatu ko mooy yëkkati kii moo koy def keroog bi ma fi ñëwee yëkkati kii ci laa xam ne mu ngi sonn parce que dama ko yëkkati man àttanu ma ko man xale donc kon sama maam mag àttanu ko ndegam man xale àttanu ma ko mag waxuma ko ngeen loolu ci mën a def ci lu baax ngeen dimbali ko te yàlla tax loo leen ci def yàlla ngeen koy defal te yàlla dina leen ko fay incha allah loolu rek laa amoon ci dama leen ñuy wax di leen gërëm leen tamit di leen sant ndax nit ñu baax ngeen vraiment ñu baax ngeen ndax tànkam lu woo leen benn yoon tànkam lu woo leen benn yoon di sant di leen gërëm ngay yëngu ci social di dem ci ñi nga xam ne suñu borom dafa leen teg ay nattu nga di leen jàppale ba waral sax suñu teew tey fii euh, euh, lan ngay wax lan ngay ban message ngay lancé ban message ngay lancé. bon di ne salaamaaleykum wa rahmatullah euh, di leen remercier yéen ñii di œuvre dans le volet social benn benn appel lay def muy di sàkku nguur gi gëstu ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw parce que yi bëri nañ. fu ne dañ la koy wooye mais man mii nga xam ne mënumaa jàppale kenn yàlla rek mu mën a jàppalaate ñaan yàlla bon volonté yi nañ gestu ñi nga xam ne dañuy œuvrer dans la volet sociale bu tax na rek soxla bu bu ñëw rek gars yi mën ko mën ko résoudre parce que fu mu toll nii moom daanaka Sénégal ñëpp feebar te kenn xamatul lan moo lan moo ko waral lan mooy teg nit ñi feebar léegi nag état bi na jéem xoolaat. ban tactique la war def pour mën a gëstu ñi nga xam ne bëgg nañoo faju mënuñoo faju yaa ngi koy dégg sax sànq moment bi li mu doon wax maire bi kii di suñu yaay booy bi nga xam ne dafa feebar ki nga xam ne da ko AVC la ak euh, pas mal euh, kii yoo xam ne maladie yi ko dalaale en même temps di ko masawu tamit bu baax ak tamit raxam bi nga xam ne tamit euh, daa xaw feebar moom it boo tax na tamit du toog si kër gi metti na trop lii ko gis sax sa yaram day daw. di sàkku rek état bi ngir yàlla war a suuri nañ dimbali ñii nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw waaw nañ leen gëstu bu baax ñu bàyyi folklore bi nañ def ngir yàlla tax mën daal defe naa ne loolu daal laay am pour wax ko ak ñëpp ñi nga xam ne dañuy œuvre dans le volet social tamit di leen remercier parce que Sénégal je nii rek lañ mën a am parce que nit bu nekkee ci tolof tolof bu tourné am ku mu gis defe naa loolu lañ soxla te loolu tamit ñu koy xaar ci état bi ak kii nga xam ne son excellence. Macky Sall moom la fi yàlla teg di ko ñaan ngir yàlla war a suuy na gestu eh, ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw mu xoolaat ban budget lay mën a octroyer ñi nga xam ne ne dañoo nekk ci tolof tolof yi bëgg faju mënuñoo faju nañ ko xoolaat ngir yàlla tax waaw